waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Haaj Babacar delloo nuyoo ak ziyaara. jërëjëf oustaz yóbbalu bés bi. waaw Babacar yóbbal bi mujj ci semaine bi dafa jëm ci nit koo xamante ni kii dafa bari lu ñu koy tudd lu ñu koy tudd te léeg muy toog sax fitam di rëcc ndax tudd yuñ koy tudd mu bëgg mucc ci loolu buy am cat mu mucc ca buy am ngaañ mu mucc ca bu dee wax mu mucc ca loolu su ko bëggee day faral def zikkaram subuuxun qudduusun rabbul malaikati wa ruux même bu ko mënee di ko def ci sujootu julleem incha allah yàlla dina ko aaral boppam ci làmmiñu nit ñi muy wax subuuxun qudduusun rabbul malaikati wa ruux سبوح قدوس رب الملائكة والروح لولو كوكاي ديف ان شاء الله بيب لامين بو جيم يو ياو سي اي واخ ولا لنين سونو بروم من لا تيا موسل مام nga def dang koy def rek muy sa sabba nga diko sabbale sa borom